salaamaaleykum mbokku internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu am mbégte dalal fii kii di Abdourahmane Sall nekk secrétaire national du mouvement des cadres du PRP su ma juumoon nga corrigé voilà ñoo ngi lay jaajëfal bu baax ñu mm-hmm. la fii ci Sénégal bàyyi la nga nuyoog mbokku mm-hmm. internet yi waaw jërëjëf euh, Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu di la remercier bu baax a baax si invitation bi ñu defal la transmettre également euh, nuyoo l'ensemble des militants de notre parti le PRP ak du président Déthié Fall di nuyu également l'ensemble des téléspectateurs ñi nga xam ni ñuy suivre à travers donc votre votre site Sénégo les nuyu di am yaakaar nañu am donc un débat très intéressant ba nga xam ne Sénégal yi ñu seetaan yëpp nañ si mën a jëlee. PRP PRP mooy lan. PRP pour ñu ñuy seetaan. PRP c'est le parti républicain pour le progrès diisoo ak askan bi. Hmm. noonu la mooy parti bi nga xam ni le président Déthié Fall. mi ngi ko ñoo ko créé ndoo euh, le 28 euh, mars 2000 2021 donc mu am un an et quelque donc muy parti bu bees boo xam ni véritablement. Euh, yéen ay républicain progressiste ngeen alors. waaw loolu la ñu bëgg doon te loolu la liggéey pour nekk ko parce que dañoo gëm ni quand même que dañoo gëm les fondements de la république dañoo gëm quand même aspect républicain boo xam ni dañ ko war a incarner tey fii ci Sénégal parce que dañ gëm ni suñu salut. foofu la nekk en même temps tamit dañoo gis ni Sénégal yàgg na dans la république dans un esprit républicain mais ba léegi hmm. donc euh, développement amagul ñu gëm ni donc on doit s'appuyer sur les valeurs républicaines et tendre vers donc le le progrès il y a déjà un parti qui s'identifie ainsi mm-hmm. l'APR l'alliance des forces bon euh, l'APR bu président Macky Sall Euh, mhm. est-ce que ñoom nit ñu doxalee seen doxalin par rapport à votre vision. Mhm. de la république dafa jaarul ci yoon wala dangeen ngeen jàpp ne war nañu ko mën a améliorer. waaw de toute façon en tout cas boo gisee tey le président Macky Sall bi mu parce que parti c'est quand il exerce le pouvoir ngay doog a mën a xam dëgg-dëgg est-ce que philosophie am ànd na ak wooteem. Mhm. te tey président Macky Sall boo gisee en tout cas di mu doxalee. tout montre à croire que c'est tout s un parti républicain. ah bon non non c'est sauf ça li koy njëkk wane mooy bu ñu fàttali ko bi ñu jëlee pouvoir bi ñoom en 2012 bi Macky Sall ne la patrie. avant le avant parti ñu ñëpp ñu bëri di ko rafetlu mais ñun dañ jàpp ni man personnellement dama jàpp ni baa ngi noonu parce que bu ñu demee ba un parti politique accéder au pouvoir ba pare ne la patrie avant le parti ça veut dire ko wax jàpp na ni dans sa que mën na am ñu toll benn instant muy am des intérêts de la patrie ak des intérêts du parti yu wute ba mu jël les intérêts de la patrie teg ko ci kaw doo ko wax intérêt parti ñu jàpp ni donc un véritable républicain warul xalaate na parce que intérêt parti mënul am bu wute ak intérêt patrie bañ koy hiérarchiser hmm. donc nit ku dem ba jàpp ni si sa doxalinu pouvoir mën nga dem ba sa intérêt parti wute ak intérêt patrie bi rek mooy musiba mooy wane que carrément que ni c'est pas un républicain en tout cas ñun au niveau du PRP ñun dañ jàpp ni intérêt parti amul il n'y a que l'intérêt de la patrie un parti mënul am intérêt bu wute ak intérêt euh, patrie bi donc c'était te loolu gis nañu si doxalin bi si doxalin bi gis nañu ni xel mu amoon ba jàpp ni intérêt parti am na moom la jël sax def ko ca kanam ba nga xam ni ba gis nañ lépp doxalin président Macky Sall. pour le président Macky Sall parti am la jiital ci kaw la patrie. mais tout le monde président Macky Sall tey boo xoolee tey ñu am une constitution constitution wax président Macky lan moo tax waxakul lan moo tax muy tuur lëndëm nit ñi c'est parce que il est dans un calcul de parti te xam na ni tey bu leeraloon affaire bu leeroon tey Sénégal. intérêt mooy Sénégal yëpp tey nekk dans des débats d'idées dans des débats de projet loolu mooy intérêt patrie tey boo invité woon parti politique da ngeen waroon mën a waxtaan de projet agriculture naka lañ koy développer enseignement bi naka lañ koy mën développer enjeu yi de troisième mandat tu veux dire waaw non je veux dire loolu bu leeraloon du dem ci troisième mandat hmm. Sénégal dafay dem dans une logique de débat d'idées de débat d'idées de projet hmm, parce que dafay dafay libérer énergie yi ambition yi ak yooyu. voilà pour le mm-hmm. pays. Mm-hmm. donc koo xam ni intérêt dëkk bi moo la yitteel war nga mën a libérer énergie yi war nga mën a libérer xel yi pour ñu liggéey mais boo demee ba tënk dëkk bi si un débat yoo xam ni amul njëriñ Sénégal tey enjeu yi ñu toll si monde bi. ñu war xalaat lu bari. tout le dernier mandat tourne autour du troisième mandat. mais tout le quinquennat. Mm-hmm. tourne autour du troisième mandat alors qu'il y a tellement tellement si monde ba nga xam toutes les énergies tey dañu waroon nekk tey si loolu ñu xool naka la ñuy développer suñu dëkk des débats d'idées des débats de projet mhm. mais tey débat politique politicien nañ te moom moo ko tey wax ko parce que nee na bu ma waxee lii am mu waxee lii am mais est-ce que amul amul amul benn part de vérité quand même ci loolu mu wax su ma waxee du ma nekk candidat dëkk bi nekk ci campagne sama parti tas kenn ku nekk bëgg en tout cas fësal boppam comme sax kenn dootul liggéey ci réew mi est-ce que loolu tamit du benn part de vérité quand xam nga loolu loolu dafa nekk loo xam ni à la limite dafa dafa dafa graw hmm. wax boobu parce que tey problème mu troisième candidature dafa warul woon posé wu parce que tey damay faral di jël benn misaal tey boo jëloon taxi fii ne ko yóbbu ma fa foo jëm mooy la Dakar laa jëm taximan bi ne la yow nga de taximaan bi dakaar leerul parce que dakaar mën nga ma yóbbu Almadi mën nga yóbbu ville parce que leerul. Mhm. wax ma dakaar mooy fan. <laughs> avant ngay dugg ci taxi bi taximaan bi ne la dakaar mooy centre ville nga ne ko est-ce que wóor na la ni mooy centre ville. Mhm. mu wax la ñetti yoon dakaar ci sama jàggat mooy centre ville nga ne ko ñaata la mu ne la 3000 la nga dugg nga dem ba ci yoon bi mu ne mu jëmale Almadi. nga ne ko sëñ bi yow centre ville mu ne ma non non dakaar laa la waxoon Dakar mën na nekk centre ville Dakar mën na nekk kii léegi dañuy dem si juge ba mu wax. Hmm. mais bu booba fekk yow enregistré woon nga ba ngeen di waxtaan. ba mu hmm. lay dikk. Hmm. mais loolu boo leen demee si juge ba coow waru fa am. bu fa bëggee kër bi nga jéem lëndëmal lëndëmal xelu nit ñi te loolu la Macky Sall Macky Sall ñu bëri dañ naan dañuy jël kii Ablaye Wade Ablaye Wade ba muy wax daf fekkoon ñu valider ñu. voté constitution ba pare. Macky Sall avant ñuy voté constitution la def campagne daal di ne damaa bëgg ngeen voteel ma nit ñi laaj ko point bi leerul leeralal ñu ko avant ñuy voté mu ne ñu boo leen ma votelee mandat bii may def da si bokk mu ma defaat beneen. ça c'est avant le vote. avant le vote campagne électorale. avant pour ñu voter avant, avant le référendum. avant le référendum quand il a mm. proposé son texte. Mmh. son ki ko bindal constitution bi wër def campagne. Mhm. daal ne nul nul ñetti yoon. Mhm. man mii di citoyen fort de ça ma jël ma voté constitution. ki ko ki ko bindulu wax ma lii la si jublu ki ko ki ne ma lii la si jublu. le professeur Ismaïla Madior Fall man ma voté man lan laa voté loolu moom am nga dañuy yóbbu si débat wu français ak du loolu problème bi mooy ki jënd lan la jënd te ñun bi ñuy jënd dafa am lu ñu jënd te lii waree que ni ki ko jaay. lan la ñu dig mi ngi fi enregistrement yi yaa ngi fi donc moom xam nga constitution dégg naan juge constitutionnel ñoo koy interpréter mais loolu day fekk xëy na ña ña ko bindoon nekkatuñu fi ñu naan ña ko bindoon dans yaa y a trente ans lan la ñu bëggoon wax mais ka ko bind mi ngi fi. Mhm. wax ba mu ñuy proposer lan la bëgg. mais kooku nee na en principe maintenant le mot en principe parce que dëggalu naa benn professeur. te droit nee na Macky Sall pendant qu'il écrivait la texte moom dans son fort intérieur il voulait en finir mais texte bu mu proposer la conseil constitutionnel ñoom ñoo ko ne parti bi dindi ko parce que mandat bi en cours mënoo ko laal. waaw pour intangibilité de la bu ma revenir ci tax bi rek. taxe bi ne la ba ma lay wax ay en principe xam nga loolu waxu waxu kasaw kasaw la. foofu tamit man damay wax dama si euh, journaliste yi quand même. nga baal mm-hmm. mais naa leen si parce que je crois que euh, en France xel xalaatul ñuy poser débat est-ce que troisième est-ce que waa ji mën defaat beneen mandat aux États-Unis amul c'est que yenn saa yi tamit foog naa journaliste yi ñoo jàppale pouvoir bi si loolu ba ñu instaurer un débat inutile. parce que débat troisième mandat amul le président tout c'est clair cest à que waruñu woon sax dem di ko fekk dans ce débat la bañ naan ñii ne nañ nañ lii bay créer débat. il ne devait même pas y avoir de débat waruñu si woon sax di wax parce que wax bi mooy légitimer quelque part. <laughs> débat alors il devrait pas y avoir dañuy jotali donc ah. waaw waaw mais da ngeen di jot mais yenn saa yi nag da ngeen di xaw <laughs> da ngeen di xaw ruube <laughs> ba nga xam da ngeen di créer débat débat warul woon am. Uh-huh. tey fi mu nekk nii débat naka la ñuy développer Sénégal la ñu war a nekk. Uh-huh. et puis mu ne bu ma waxee sama ministre duñu liggéey mais xoolal ma boobu avant président président de la République c'est koy. kii yam xam-xam ak mën-mënam mooy naka lay tànnee ñi muy àndal. président Macky bu demee ba def aveu ne ñii ma tànn. su ma leen waxee leen waxee dootuñu liggéey problème bi du du mu tànn moom si boppam moo mënul tànn de véritables patriotes yoo xam ni ils sont totalement désintéressés nekk sur le sur l'intérêt euh, réew mi ba nga xam ne lu mënti am dañ ko dañ dañuy liggéey. Mm-hmm. aux États-Unis deuxième mandat bu amee ministres yi dañuy liggéey. en France Macron bi mooy dernier mandat ces ministres la ñuy taal parce que c'est des gens qui aiment leur pays mais bu fekkee ni moom nee na wër bu leen waxee du président dootuñu liggéey mais <laughs> je veux dire cet aveu là. mais est-ce que globalement c'est pas euh, le niveau auprès des acteurs politiques aujourd'hui qui est trop bas ba mënuñu en tout cas imposer au pouvoir les vrais sujets qui concernent en tout cas véritablement sénégalais bi quoi. bon foofu du ma xaw a euh, d'accord tuuti parce que xam nga man gëw ma ni sama kii ah gëw ma ni acteurs politiques yi ñoom ñooy impulser les changement pour man. c'est les citoyens les les débats quoi les waaw xam nga débat les débats mais xam nga débat toujours day répondre débat jaay looy jaay day répondre à un à une demande. Mm-hmm. à mon avis Sénégal tey c'est les citoyens c'est un débat c'est les citoyens qui doivent exiger. ñu élever des parce que les politiciens ils s'adaptent toujours aux exigences ouais. des citoyens mm -hmm. citoyens yi ñoom ñoo waral waratu nangu mm-hmm. ñu leen di fowee ñoom ñoo war yëkkati le niveau du débat ba nga xam ne politicien bu nekkatul à la hauteur dootu fi xaj day dem mais dans les pays développés lan moo tax politiciens sañatuñ def yenn yi c'est parce que la conscience citoyenne c'est très levé moo ko nangu moo ko nanguwul. Mm-hmm. et loolu j'interpelle la société civile. Mm-hmm. ñoom ñoo war a travailler aujourd'hui au niveau de la conscience citoyenne. société civile yi léegi acteurs politiques mais c'est dommage. c'est xam ni ah. yenn mm-hmm. débat yi sax politicien dootu ko nangu teg parce que bu ko tegee xam na ni ña muy déglu ña muy waxal dañ koy weddi. parce que ñooñu ñoom ñoo yëgee yëkkati dans tous les pays du monde c'est les citoyens qui ont fait des révolution en France. c'est les citoyens. Aux États-Unis, c'est la, la conscience citoyenne qui pousse les hommes politiques à s'adapter. Les hommes politiques s'adaptent toujours aux exigences. dafa mel ni rek le client ak l'entreprise. parce que parce que l'homme politique vient de ces de ces de cette. de de là. mais bien sûr groupe là ainsi de suite. mais bien sûr. Ah, ah, solo d' mhm. léegi nga nekk PRP. PRP mhm. quand même euh, quoi que l'on puisse dire. Mhm. leader am tey fexe na ba kenn mënu ko. kenn mënul laam-laamee ne. Mhm. acteur politique bu majeur la. Mhm. ku am empreinte la ci terrain politique gu Sénégal. Mhm. ku wane boppam la ci maninam dem nañu fi sax woowee que Messi ndax ay tactique yi nga xam ne <laughs> teg na ko ci biir opposition pour mën a créer problème yi nga xam ne pouvoir bi tey am na ko à l'Assemblée nationale muy Déthié Fall Déthié en tout cas euh, une tournée internationale. Euh, bu mu annoncé sa tournée nationale déjà euh, voilà on a vu que Ousmane de place d'opposant numéro un engage benn ko comment est-ce que vous vivez cette opposition là au sein de l'opposition ou bien c'est plusieurs têtes d'opposition dans une même opposition bon euh, pour man c'est pas plusieurs oppositions dans une même opposition c'est une seule opposition plusieurs têtes d'opposition dans une même opposition et ce qui est tout à fait heureux parce que euh, yaakaar naa ni li ñu soxla mooy de la compétence multiple et diversifiée. loolu loolu la Sénégal soxla. je crois que benn la pensée unique ak benn kii loolu baaxul si réew. dañu soxla quand même une diversité de de maintenant ñun Ousmane Sonko Pastef c'est nos partenaires parce que ñun ñoo bokk la coalition. Yewwi Askan Wi. Mm-hmm. ñu bokk effectivement am ay point de convergence en termes de vision ñu ànd loolu moo tax ñu ànd. bien vrai que nag am nañ également des points yoo xam ni euh, on n'est pas tout à fait en phase parce que loolu mooy wane aussi que nekkuñu Pastef wala Pastef bokkul PRP c'est parce que aussi on a nos différences on a aussi nos points de convergence et li ñu tënk dans une coalition Yewwi bi ñu koy signer la charte bi tënk Yewwi mhm. dafa prévoir lii donc si yoon bi lañ nekk mhm. dafa ne dañuy dem élection locale ensemble dem élection législative ensemble élection locale élection présidentielle du moins ku si nekk comme dafa am de la diversité des programmes sont différents hmm. ku si nekk li nga bëggal Sénégal c'est différent sur certains points ku si nekk quand même am nga droit sañ-sañu dem développe ses stratégies pour jaay ce programme aux Sénégalais maintenant en cas de deuxième tour ñu daje donc législative yi jeex na je crois que le PASTEF ak Ousmane Sonko am nañ seen sañ-sañ développer seen pour vendre seen programme lan lañ ban mbébét lañ mën a am pour Sénégal le président Déthié Fall aussi au niveau du PRP ñun aussi on a notre programme boo xam ne moom lañ bëgg taw Sénégal mm-hmm. donc nous aussi on est en train de faire ce qu'il faut pour donc jaay suñu idéologie jaay suñu gëm-gëm xam fan lañ bëgg yóbbu Sénégal mm-hmm. je crois qu'il n'y a pas de contradiction maintenant les Sénégalais après vont vont pouvoir apprécier mm-hmm. mais à mon avis c'est tout heureux pour man que mu am de la diversité de l'offre et surtout de la diversité qui vient de, des gens de même génération parce que quand même c'est c'est des gens de même génération yoo xam ne ku si nekk am nga loo bëggal Sénégal am fu noo ko bëgg a jaarale c'est tout à fait salutaire que ku si nekk quand même jéem a euh, développé wu man dama koy rafetlu en tout cas. Mm -hmm. Mm -hmm. d'accord euh, Père Père déjà comment est que vous vous organisez au niveau national dans la diaspora nan ngeen di organiser seen partie fii ci mim réew ak euh, ci bitim réew. gis nga man man personnellement PRP la mooy sama premier parti politique moi j'ai jamais fait la politique ah bon? PRP faloo laa mais en tout cas j'ai été très surpris hmm. développement parti parce que euh, parti la boo xam ni un pratiquement la la am un an et quelque hmm. bi ñuy def euh, investiture si locales yi on a vu que PRP était représenté pratiquement dans toutes les communes du Sénégal bi ñuy def élection législative. ci parti buy soog a judd. ci parti buy soog a judd. c'est important bi ñuy def dépa hmm. législative yu également partout dans toutes les listes pratiquement. on a proposé hmm. on a proposé des gens. Hmm. donc muy parti boo xam ne véritablement peut-être que certainement c'est dû à la carrure. du leader parce que leader bi quoi qu'on en dise tuuti parti bi parce que dafa am dafa am jaar-jaar. dafa am vécu politique dafa am vécu bu ko may bu ko may loolu. maintenant nag en termes d'organisation on a un secrétariat national exécutif boo xam ne tey moom mooy tous les toutes les questions d'ordre donc d'exécution ñoom ñoo koy gérer maintenant on est en train de nous massifier au niveau donc de toutes les communes euh, du Sénégal. Et vous avez beaucoup de maires d'ailleurs par exemple. waaw am nañu ay maires comme docteur Mbodj par exemple. Mm-hmm. on a des maires on a des conseils man je municipal au niveau de la mairie de de mm-hmm. donc on est en train de nous massifier parce que li ñu bëgg tamit mooy. parce que si sunuy euh, si sunuy valeur si sunuy li ñu bëgg a prôné si sunuy vision dañu bëgg a PRP en 2023 bu ñu ko tuddee ñëpp ne parti bi la démocratie interne est une réalité là hmm. parce que sama genre yi nga xam daawuñu politique lan moo tax daawuñ ko def c'est parce que dañ naan gis ni. vous ne vous retrouvez pas dans les. Dans, autres voilà mm il y avait un, leader dictateur qui imposait tout ce qui parachutait loolu la ñu bañ tey au niveau du parti républicain pour l'après moo tax ba fi ñu toll fii il n'y a pas de coordonnateur au niveau des départements et des communes il y a juste des points focaux et on est en train de nous massifier de former des cellules bu préparer un congrès boo xam ni tey parachutage du am. tout léegi tout ñi nga xam dañ leen di fal yëpp ci base bi la ñuy jógee parce que on veut que mu nekk parti boo xam ni démocratie interne dafa dëggu donc si loolu lañ nekk et ça se passe merveilleusement bien les gens sont en train de massifier de monter des cellules partout dans le Sénégal et au niveau de la diaspora gis ngeen image yi le président Déthié Fall bi mu donc au Maroc actuellement mi Italie mais en tout cas man sa popularité me surprend c'est bien que xam nga politique tamit. Euh, bon moom moom c'est c'est c'est loolu warul warul la bett sax mm-hmm. d'ailleurs parce que Déthié tamit. Mm-hmm. dafa am vécu politique quoi depuis le réew mi mm. ainsi de suite euh, mais taxawal parti politique du lu yomb déjà sa mm. demande les moyens mm. et moyens yooyu comment est-ce que bon xam nga euh, peut-être que dañ tàmm benn façon def politique mu ñu daan gis depuis temps yu yàgg yi mm-hmm. ou la politique alimentaire di loolu moo fa ñu bëri foog ni ça nécessite effectivement beaucoup beaucoup de de moyens pour entretenir les. ñu personnel c'est ça mais man je crois que <laughs> aujourd'hui Sénégal bon maa ngi koy wax sànq sur la conscience citoyenne. mais uh-huh. conscience yooyu commencé na jóg ba nga xam ne tey si tey les gens gëmatuñu lu politique alimentaire boobu ñu ngi koy commencé di ko démystifier je crois que léegi à travers un engagement à travers un discours à travers un programme tu peux arriver à mobiliser des des mais. kan moom mosoon yaakaar Sénégal dañ dem ba une coalition taxaw population yi di ko financé Yewwi Askan Wi on a vu si campagne euh, locale yi ak campagne. Mmh, les gens ont pris leur argent ñëw def ko. Hmm. maintenant nag évidemment pour les déplacements. ah parce que il faut faire des tournées il faut ça nécessite des moyens bon maintenant mais loolu aujourd'hui dans notre parti on est en de nous organiser par des cotisations par des qui de fonds comme tout parti ba tey on est en train de on a on, on tient avant un an on a eu notre siège qui est sur la VDN. Mhm. qui xam ne moom moo nekk tey siège coalition Yewwi Askan bi mhm. ñu koy tenir ba ba loolu sans sans problème le président est en train de faire ses tournées ñun tamit les autres leaders on est en train de faire notre donc on est en train ñu ñu ngi fonctionner. Mhm. sans sans sans sans problème avec nos moyens que nous arrivons à mobiliser. par nous-mêmes. d'accord loolu loolu am na solo. alors ñu nekk ci dëkk boo xam ne saa yu ñu yeewoo. problème di di mhm. jur. Mhm. Euh, ab laataa ñu yegg ci question quarante cinq milliards yi. Mhm. Euh, Amadou Ba nekk premier ministre. Euh, mu war a dem assemblée nationale pour ñu déglu ko par rapport ak nan lay doxalee ci mbirum en tout cas politique Sénégal ci at yi di ñëw wala ci weer yi ko yi leen dese ci pouvoir bi. comment est-ce que jàpp nga ne lu war bu ko defee dina ci am. Hmm, en tout cas njeexital boo xam ne Sénégal dina seen boo gis moom bopp wala bu jëmee assemblée nationale gars yi dañ koy buntu xatal ndax match nul bi nga xam ne nekk na ci biir assemblée nationale. bon de toute façon euh, Sénégal ni ñu ko bindee c'est le président de la République qui définit la la politique de la nation. Mm -hmm. et que Macky Sall nekk na fi quand même depuis euh, sept euh, ans ak cinq depuis douze ans il est là donc gëwuma en l'espace de trois mois Macky Sall mën na fi inventé waat benn benn projet de société benn kii bu je je je crois pas n'est-ce pas <laughs> donc en tout cas góobu ne mën na fi génne lu bees. dese na ay quinze mois de. waaw mais ku def douze ans. Hmm. promettroon cinq cent mil emplois pétrole baa ngi ñëwaat gaz bi un million un million ah, un million. mais tu sais c'est pas les moyens qui moom mooy tax dëkk développé dëkk xam-xam moo tax mu développé ak jub. ak patriote ak patriotisme. loolu dëgg la waaw les pays hmm. comme pays yu bëri développé nañ te amuñu ay ay ay. ça c' est non ça ça vous avez vous avez parfaitement raison. loolu nag la loolu la Macky Sall. manqué mel ni boo jëlee un milliard jox ko ab dof. du ko amal benn njëriñ du benn njëriñ ay problème sax la koy andil <laughs> ay problème la koy andil donc donc et Macky Sall loolu la manqué te gëw ma ni koo xam ni def na fi 12 ans mille 500000 emplois 1 million d' emplois ba tey dëkk bi nekk si si guuta bi mu nekk tey il n' a tenu benn kiyam bu mu xoon tenir ko. dette bi tey aujourd'hui la dette dette au Sénégal on est à 73 pour cent par rapport au PIB alors que avant il était pratiquement ay 36 40 pour cent bi muy jël pouvoir. Euh, la rigueur du monde qui impose cela tey. non non non non de euh, on s'est endetté pour yoo xam ne c'est des investissements de de de de luxe yoo xam ne amul benn njëriñ. alourdir la dette publique comment on peut au terre bi amul njëriñ mais xam nga BRT beeg autoroute yeeg ak yooyu xam nga tey j'aime les images ah j'aime bien parler en en image mhm. man tey bu ma amoon problème pour yóbbu sama doom mu jàngi may liggéey ma am salaire cinq cent mille ma dem euh, dem dem euh, banque ñu lebal ma oto boo xam ni benn Mercedes xaw ma benn kii boo xam ni Euh, ça va me coûter quatre cent mille francs si sama kii may jë may naan pour yóbbu sama doom yi la ñu naan ma bon Mercedes am nañu respect mi ngi yóbbu sa doom yi évidemment mi ngi leen di yóbbu mais xale yi bu ñu wàccee duñu lekk non pas de fourniture ou léegi li ñu may wax mooy oto bi baax na mais parce que oto baa ngi yóbbu say doom mhm. donc finalement c'est bon mais évidemment Mercedes bi dina yóbbu samay doom mais est-ce que c'est intelligent ma yëg cent mille francs de mon di ko def si oto alors que xale yi amuñu luñ jàngee. amuñu luñ lekk amuñu luñu lekk. amuñu luñ kii et on ñuy ñuy tiitaroo ni Mercedes moo ñu yóbbu. Hmm. ça n'a ça saa ça n'a aucun sens et loolu la def quand on prend un stade. on met cent cinquante cinq milliards pour ça alors que y des élèves yoo xam ne ñu ngi kii si dans des abris provisoires mais quel est c'est c'est quoi parce que tout simplement bu ñu amee match les gens sont là gis stade bi mu rafet ñu ngi tiitewoo loolu

même si c'est sur fonds propres. Mmh. Je ne crois pas que ce soit sous fonds, même si c'est sur fonds propres. Comment on peut milliards de notre argent sur fonds propres, construire un stade alors qu'on a des qui ça, Alors il y a grave. priorité à côté. plus vital. Mais à, mais voilà. xam ne impact am moo ëpp. dayoo ci askan wi quoi. boo jëlee sa salaire jël 400000 def ko mu des 100 xam lan moo la naka dal après da ngay xëy suba sa jabar feebar. doo am loo ko fajee. xam la ngay def la ngay def jël jël bagage googu di ko jaay loolu moo ñu dal ci stade euh, hôpital Dantec c'est-à-dire que Sénégal est tellement endetté ba nga xam ni tey endettement am dafa élevé maintenant pour régler des problème essentiels on est obligé de vendre les bijoux de la famille. ah bon Sénégal toll nañ foofu. mais est hôpital Dantec. dañ ko jaay. jaay ñu terrain bi. non mais loolu ni ko ni ko financé. pour investir ci euh, hôpital waaw loolu la mais cest da ngay jaay parce que tu as un problème vital boo xam ne mënatoo. ah kon Dantec mënoon nañu jël xaalis ci ci réew mi. defaraat ko sans pour autant que ñuy suuf si. mais wala bu doon endettement yi maitriser nañ ko. Hmm. wala def endettement boo xam da nga ko def dans des secteurs yoo xam day développer sa économie. bay andiwaat xaalis tu peux mën nga ko financer. Hmm. mais boo demee boo xoju ah hôpital bi nekk état bi mu nekk nga xam ne il faut agir amoo loo agiré looy def jaay terrain bi mais moom. mais c'est la même chose que dans les maisons ah boo amatul léegi après de la maison. Mhm. et foofu la ñu toll. donc pour revenir si si si. ça à la pauvreté quand même. mais le Sénégal est très pauvre le Sénégal ça ça mais tey boo nekkee si dëkk ñun ñu nekk dans le champ politique on se rend compte que mais parfois. les gens vivotent Sénégal <laughs> parfois tu te demandes comment même on fait pour comment les gens font pour. pour et pourtant on dit que Sénégal fii contrairement à beaucoup de pays du voilà avoir un certain niveau par rapport au prix des denrées alimentaires mais Sénégal il a six plus de six millions de personnes ñoo xam ni dañuy dund en deçà du seuil de pauvreté et seuil de pauvreté au Sénégal c' est neuf cent et quelques francs par jour cest il y a plus de six millions de Sénégal yoo xam ni bu ñu yeewoo. presque moitié de la. neuf cent te loolu mooy pour ça que Sénégal quand tu as mille cinq cent francs par jour dañ jàmm tu es riche fi Sénégal xam nga loolu loolu la. enquête ANSD bi ñu génnee c' est ça c' est dire que seuil de pauvreté c' est cent quelques francs par jour. donc boo amee léegi nag ñu jàpp ni il y six millions et quelques ñoo xam ni. mënuñu am mille cinq cent ils pas de francs. non mooy neuf cent et mooy seuil de pauvreté bi. boo amee mille francs tu es Sénégal par jour te sa lekk jëndu si sa naan jëndu si sa dëkkuwaay jëndu si bon ma jàpp sax amul problème léegi nga xool ni il y a six millions et quelques. ñu xam ne amuñu mbiru yeewu amuñu 1000 francs par jour te war a ndekki war a añ war a war a dëkk war a paas war a toj. war a faju war a faju comment on peut dire que le Sénégal gère. Hmm. non d'accord loolu loolu déjà. am hmm. na am na solo. 45 hmm, euh, milliards dëgg nga ko am. cinq milliards euh, de marché de gré à gré achat arme pouvoir bi déjà ils ont brandi l'arme de secret défense. noonu la war a demee wala waru la demee noonu. Euh, personnellement j'ai lu le décret. Mhm. décret bi euh, bi wax que ni yenn achat yi yenn achat marché armement yi. Mhm. dañ ko jénne ARMP. mais boo liree décret bi ça m'étonne d'ailleurs pourquoi les dama leen di attaqué tey <laughs> la presse pourquoi la presse n'a pas n'a pas sorti ce décret mais le décret il est clair décret bi li mu wax c'est des armes la yoo xam ni c'est le ministre des forces armées. le ministre de l'intérieur ak les sapeurs pompiers ñoom la concerné et dans le champ d'ailleurs le dans le. ça ne concerne nullement mais mais je te lis le décret le décret le décret c'est le décret euh, c'est le décret 2020 876 ñaari article la. waaw article 1 tout le monde les travaux fournitures prestations de services et équipements réalisés pour la défense et la sécurité nationale virgule engagés par les forces armées la police nationale et la brigade nationale des sapeurs-pompiers et lorsqu'ils sont incompatibles avec les mesures de publicité prévues par le code des marchés publics parce qu'exigeant le secret et la protection des intérêts essentiels de l'État c'est qu'ils sont exclus du du code des marchés mooy article 1 n'est-ce pas donc c'est les forces armées ministre de l'intérieur forces armées euh, police ak sapeur mhm. article on dit ceux qui doivent l'appliquer. Article 2. Le ministre des Forces armées, le ministre de le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun, en ce qui le de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel fait à Dakar le 25 mars 2020. Macky Sall. Est-ce que le ministre des Finances bi moo moo moo tax seen mbir ma mën a jàll. non dans où, ce cas précis. où est-ce que des Forces armées. le ministre de l'Intérieur et le ministre des Finances. Et c'est cohérent par rapport à l'article Parce que dans l'article 1, a des, des, des forces armées, mm -hmm. ak euh, sapeurs-pompiers, ak euh, police. police. Mm-hmm. Mais il faut déguer ministre de l'environnement. Mais environnement ñoom waruñu jënd arme. Non ça c'est ça. Non, je veux dire. <laughs> Même bu ñu waree jënd arme dafa war a jaar ARMP. Oui, d'après d'après le décret bi ñu génne. Ça, c'est un. De deux. J'espère qu'ils ont mis des trois Non, non, non, non, a pas de trois points de suspension. Il n'y a pas de trois points de suspension. <laughs> Non, non, non, y a, y a, non c'est un <laughs> maintenant, mm-hmm. mais bon, on même la liste. Il y a des arbres, certes. Mais liste bi am na ay ay vélo am na ay camion citerne. Mm-hmm. c'est-à-dire que mais pour yooyu ay arme la. vélo vélo VTT. yan ñana doy na donc pourquoi yooyu nekk foofu. ci ci quarante cinq milliards yi cinq milliards yi. ay vélo sax ma ngi ci biir waaw ay vélo ay vélo VTT. mais loolu garaaw na ah. ay citerne à eau. xanaa loolu kay demul ci secret ah, défense. bon il faut il faut nu donc vraiment c'est. <laughs> mais pour man pour man quarante cinq milliards yi ay armement kese la. non non non en tout cas li ñu génn li ñu génne ci presse ñoo ne la liste contrat bi. vélo pour lan la ci. Ah, bon je ne sais pas en tout cas il y a des vélos il y a c'est grave hein, ça il y à eau. je ne vois pas en quoi yooyu ay armes la il y a quelques armes yu nekk ci kaw c'est vrai n'est-ce pas mais comme je dis encore même le décret n'exclut pas le décret ne cite pas le ministre l'environnement donc hmm. xaw au nom de quoi ils peuvent et en plus maintenant on passe on commande à une personne boo xam ni recherchée partout koo xam ni véritablement un délinquant financier doy na waar de bon en tout cas. daanaka euh, c'est comme si Sénégal daal ñoom. dañuy dañuy dañuy que dans mm-hmm. le cadre du TER aussi là aussi c'était une société en faillite c'est pourquoi mm-hmm. quand même je vais profiter ici pour dire quand même à nos députés mm-hmm. de Yewwi Askan bi ak de Wallu on a fait le tour du Sénégal on a dit que bu leen ñu votelee il y aura de la rupture à l'Assemblée nationale il y aura dara dootul mel comme ni mu daan mel luubal bu fi am lu fi awul yoon dinañ koo saytu vraiment je crois que ils ont une belle occasion pour montrer qu'il Avec vraiment, une ils doivent, saisir, bah, ils doivent saisir ce dossier-là, mm -hmm. faire toute la lumière qu'il faut sur ça. Vraiment, j'interpelle nos députés. Ils dañ leen fal. pour ça ce n'est pas que ce n'est pas peine perdue parce que déjà le gouvernement ñoom dafa mel ni euh, question boobu romb nañ ko ñoo maintenant. waaw mais c'est à l'Assemblée nationale de jouer son rôle parce que assemblée dafa am rôle donc de l'action du gouvernement. Mhm. dafa am rôle et loolu ñu dañ ko dikk sénégalais yi mhm. que ni buñ ñu falee au niveau de l'Assemblée dañ koy def sénégalais fal nañ ñu jox nañu la majorité aujourd'hui donc ils doivent jouer leur rôle mhm. vraiment ça j'en inter no nos députés pour qu'ils agissent pour wan sénégalais que seen liggéey ñi ngi si mhm. d'accord est-ce que déjà dans les chartes de votre parti kooku dama ko tëboon na sànq vous prévoyez une formation de vos jeunes véritablement parce que tey gis nañ ne ci parti politique yi euh, niveau bi dafa faible ba ñi nga xam ne ñoo waroon taxaw ci plateau yi benn genre débatteur ñoo leen remplacer parce que tey on voit beaucoup plus ceux qui s'identifient aux activismes ñoom ñoo gën a présent que jeunes yi ci ci ci plateau yi. Mm-hmm. est-ce que tey yéen PRP. da ngeen di travailler à a à véritablement faire face à ce problème qui est là quoi. Mm-hmm. bu njëkkaan avant en deux mille dix. waaye on voyait des jeunes dans les partis qui étaient présents. Mhm. vraiment qui qui occupaient le devant des partis politiques. Mmh. c'est le cas de Abdou Mbow à l'époque Massali ak ñooñu bëri woon nañu ah. Mhm. Jutel jeunes yooyu. Mhm. tey loolu dafa manqué ci terrain bi quoi. est-ce que yéen dans dans le cadre de votre parti. l'école de parti est réelle est-ce que c'est un fait. bon en tout cas PRP aujourd'hui en tout cas ñiy dem ci débat yi quand même je crois que c'est des gens qui ont qui sont très bien appréciés. effectivement il faut la formation militante. Mm-hmm. au-delà même du formation débat hein, mais formation à la citoyenneté formation au patriotisme formation même aux valeurs même du parti à la mission pour ñu xam parti bi ce qu'il prône pour que nit ñi dans le comportement même fu ñu toll parce que tey war nañ toll foo xam ni nitu PRP bu taxee bu toogee fii nitu PRP toog euh, Matam mm-hmm. bu ñu waxee da nga xam ne ñaar ñi ñoo ñoo ñoo bokk ñoo bokk waaw moo tax dans notre secrétariat national effectivement il y a un secrétaire national chargé de l'école du parti. du parti maintenant on est en train de concocter effectivement les programmes. Mm-hmm. concocter aussi xool ñan la ñuy xool naka lañ koy organiser c'est un chantier. former les formateurs quoi. voilà on est en train de le faire même au niveau du SN cadre que je pilote. on a un programme aussi d'animation des universités même de parti pour poser des problèmes pour que les gens. xam mm. xam ne dañuy défendre benn leader politique boo ko poser question. yow seen parti politique boo leen nekkoon président de la république boo leen arrivé woon au pouvoir par exemple dans le cadre de l' école de l' nationale lan mooy seen vision u école sénégalaise. par mm. exemple la tontu. c'est boo ñëwee nee leen par exemple yenn mbirum géej gi économie maritime. lan ngeen seen parti lan la waajal loolu duñ la tontu. Mhm. boo ñëwee posé de diverses questions. duñ mhm. mën a tontu quoi parce que dañuy jàpp ne woy man Déthié laa àndal point foofu lañ nekk quoi. Mhm. dafa baax dafa bëri xam-xam dafa jàng am na expérience foofu la ñuy yem quoi. c' est le même de Pastef. bëri na ñoo xam ne boo leen waxoon Ousmane Sonko lan sa vision du secteur minier sénégalais duñ la ko mën a tontu. duñ la mën a tontu parce que ils n' d' procès wu Ousmane Sonko peut-être. Mm -hmm. certainement qu'il y aura un procès. il est convoqué pour ce jeudi c'est ce que dit la presse est-ce que jàpp nga ne dans ce dossier-là le PRP pense qu'il doit y avoir un procès pour que jaillisse la lumière. Euh, tout d'abord hein, regretter euh, les fuites. yu jógee yi parce que gis nañu weekend bi ah. Mhm. Euh, fuite bi jógee quand même bon xaw ma fuite la bu jógee police xaw ma en tout cas gis nañu mooy seen. Euh, message rajo bi n'est-ce pas bi ñu génnee où ils ont de code mais quand même je crois que on est dans c'est c'est relativement c'est c'est très grave ah. message rajo police bu ñu demee waaw bu ñu demee quand même ba des messages si si euh, si la place publique c'est extrêmement grave maintenant j'ose espérer que c'est pas fait à dessein. Mm-hmm. ça moom parce que nag xel mën na ñaaw que c'est pas une fuite organisée <laughs> juste pour euh, pour euh, ñu fàtte l'histoire des quarante cinq milliards mm-hmm. pour donc ñëw ñu dans un autre débat mm-hmm. j'ose espérer que c'est pas ça mais en tout cas bu fekkee aussi c'est une extrêmement grave maintenant parlant du procès de de Sonko je crois que au-delà même du PRP tey ousman Sonko bi nga xam ni moom mooy le principal concerné. parce que mhm. nag affaire bi moom la en c'est affaire privée moom la moom la ñu porter plainte pour euh, donc euh, affaire de viol moom si boppam dafa yàgg di wax di crier partout que il est demandeur. d'un procès d'un procès dafa dañu wax sax na affaire bi gaaw. parce qu'il est pressé parce que dafa war a donc mën voilà mmh. donc je crois que tey si tey la véritable question qu'on se doit se mooy pourquoi l'État tarde à le faire parce que affaire bi ci état bi ak ci justice la nekk. Hmm. donc ñoom ñoo war a organiser le procès mais de l' côté ñun li ñu li ñu Ousmane Sonko bu ñu ko bu ñu dégloo li muy wax il a toujours di que dañ ko nañ gaawal affaire yi donc il est tout à fait demandeur maintenant on est dans un état de droit il y a une accusation évidemment war nañ ko war nañ ko déglu déglu ko et puis que ces droits tout soit respecté nous foofu ñu nag foofu la ñuy agir parce que quand même on va pas accepter quand même que le président Macky di ñu tànnal ay candidats de pour pour euh, président di écarter des gens juste en exploitant certaines situations ça moom on va pas l'accepter mm-hmm. maintenant Ousmane est un citoyen sénégalais qui est justiciable on l'a acquis donc il va répondre bu ko woowee et que nous ses partenaires on va être là on va être extrêmement vigilants pour veiller à ce que toute la procédure soit respectée, que la justice soit dite de manière équitable. Jeudi prochain, Déthié Fall ne sera pas là quand même, il sera en dehors du pays. Est-ce que vous allez le représenter à l'Assemblée, euh, au tribunal? Est-ce que euh, vous allez en tout cas le remplacer pour aller assister Ousmane euh, au tribunal de Dakar? Oui, bon, euh, évidemment parce que euh, Ousmane Sonko, c'est un c'est un ami, c'est un partenaire. nekk mun leen bokk une famille nit am nekk nekk dans des difficultés nga toog di ko seetaan on va le soutenir n'est-ce pas avec tout ce que nous pouvons tous les mm-hmm. moyens dont on dispose on va le soutenir ça moom je crois que ça y y a aucun problème là-dessus te ñëpp gis nañ quand même diggante Ousmane Sonko ak Déthié Fall ah y a une véritable complicité entre entre les deux est-ce que vous soutenir quelqu'un parce que aussi mm. euh, le PRP c'est si Dieu fait que yéen ngeen ñëw au pouvoir vous aurez sous votre épaule ou sur votre épaule la responsabilité de protéger tous les Sénégalais qu'ils soient de Sénégalais en dehors de la marge à l'intérieur du terrain ou autre et est-ce que di soutenir nit koo xam ne dañ ko accuser de viol vous ne savez pas encore si oui ou non il l'a fait ou pas c'est pas véritablement euh, courir un peu en danger par rapport à votre crédibilité euh, politique si toutefois il s'avérait que Ousmane Sonko était coupable de ce les lui reproche euh, damay corriger tuuti la mission de de de PRP c'est pas de conquérir le pouvoir. Ah tout parti politique a non. cette euh, vocation. non non, euh, la mission du PRP. Mm -hmm. c'est de faire développer le pays. ah bon maintenant la conquête. voilà donc la conquête du pouvoir n'est qu'une stratégie une stratégie là. pour aller vers vers <laughs> vers euh, vers, euh, vers la finalité ah. parce que parce que on cherche pas le pouvoir pour le pouvoir parce que veut a notre programme on veut faire émerger le Sénégal on veut faire développer c'est notre finalité hmm. c'est la finalité ça mais la finalité mooy conquérir le pouvoir non conquérir le pouvoir la finalité c'est de développer le Sénégal c'est-à-dire vous ne pouvez pas le faire sans pour autant que vous n'ayez conquis le, pouvoir c'est ça c'est-à-dire que tey boo boo doon jógee fii dem mbaaw. foog nga jaar yoon wi waaw foog nga jaar mais finalité bi du jaar si yoon bi. ko ne sama objectif du jaar mbaaw la. bu la neexee jël géej <laughs> ñun. loolu mooy su c'est-à-dire que bu ñu dem ba jël pouvoir dañu jàpp ni sax la sa sunu sunu liggéey. commencé maintenant si vous arrivez à la finalité. voilà bon maintenant euh, aujourd'hui c'est une plainte qu'on a portée lañ portée à un citoyen sénégalais. qu'un a porté. contre contre qui contre un citoyen. contre un citoyen tout à fait. maintenant citoyen bi ñu porté plainte fekk nag sunu sunu xarit la sunu partenaire la te fii nag nit ku ñu ku ñu porté plainte say mbokk say xarit dinañ la taxaw parce que tout parce qu'il y la présomption d'innocence mm -hmm. on est coupable que quand on est jugé coupable. Ouais. entre temps Adji Sarr mi ko porté plainte. ay nitam. Mhm. ñu ngi ànd ak moom. di ko soutenir di mhm. te kenn mënu leen si. yéen vous avez décidé de soutenir Ousmane Sonko kenn mënu leen si ŋaññi si loolu. d'accord parce que dañ jàpp seen doom la seen xarit la seen kay ñu gëm peut-être moom lam leen wax. Mhm. ñun tamit ñu nekk ak Ousmane Sonko mu ñu gëm lam parce que tamit nit ki boo nekk ak moom te gëmoo lim gëmoo lim lay wax munoo saa veut dire que même y a un problème. tey bu ñu nekkoon tey Ousmane Sonko tey ànd ak moom dans le cadre d'une n'est-ce pas di liggéey te fekk ñi ngi douter même sur sa parole ça veut dire même qu'il y a un problème mhm. de sincérité boo demee ba ànd ak nit day mhm. fekk da ngay bu ne la aal da jàpp ni aal ba nga gis contraire bi mhm. Ousmane Sonko gëm nañu version loolu moo tax ñu ànd ak moom te dañ koy soutenir si loolu dans l'épreuve dañ koy soutenir ànd ak moom jusqu'au bout on va exiger à ce que le droit soit dit on va exiger à ce que ces droits soient respectés. Hmm. de bout si les droits sont ces droits respectés et que le droit est dit et qu'il s'avère par rapport à tout ce qui sera mis au procès que Ousmane Sonko est véritablement coupable de de de de de ce qu'on lui reproche est-ce que vous allez continuer à le soutenir. non non de façon bu bu fekkoon il est coupable il y a y aura même plus de soutien parce que moom si boppam. bu demee ba ko nekk coupable c'est-à-dire que il peut il pourra même plus euh, prétendre à rien du tout. Hmm. nest pas donc munoo maintenant nag sa xarit. sa sa xarit. même bu nemee ba ñu c'est-à-dire que xam nga ñaari façon soutien moo am yaa nga soutien moral soutien boo xam ni nit ki danga koy séq ak moom. Hmm. kooku même bu fekkee ni moo tooñ. da nga continuer di ko mais di nga ko soutenir dans l'épreuve dans le truc. Mm nag pour ce qui concerne le pays loolu bu fekkoon am. donc du je veux dire il sera même plus éligible ba ñuy mën a ànd ak moom di mais toujours est-il que d'après ce qu'on entend d'après ce qu'on a on voit mal d'après ce qu'on a vu en tout cas si dossier bi cette hypothèse la pour ñun gisuñu naka la mën nekkee parce que les choses ont fuité on a vu hmm. gis nañu on l'a accusé de viol. ça c'est ce qui a fuité. Ouais, c'est ce qui a fuité. ce qui n'a pas encore fuité. Ouais, bien sûr bien sûr waaw bon on ne peut pour et le contre. mais tout à fait tout à fait mais on ne xam nga loo loo loo xamagul moom mënoo si wax <laughs> n'est-ce pas nit da ngay wax si loo xam <laughs> n'est-ce pas. voilà donc si la ñu xam. Uh-huh. waaw jàngat bi ñu si am. Uh-huh. mooy gisuñu naka lañ si naka naka lañ ko. d' accord mën coupable. <laughs> loolu loolu am na solo d' accord Sénégal tamit nekk nekkum mbéy. Mm. Euh, béykat yaa ngi ñaxtu di jooy ne véritablement ça ne va pas chaque année. ren malgré que ndox mi bëri na gaa yaa ngi jàmbat ne récolte bi baaxul ñu nekk ci crise économique encore est-ce que c'est pas véritablement l'annonce de de de des prémices très difficiles pour ce pays-là. mais xam nga sànq da nga ne. ñu ngi dem si pétrole ak may la affaire bi du du pétrole du du kii rek. xam-xam la xam-xam la <laughs> d'accord. non réponse bi leer na <laughs> waaw véritablement. <laughs> donc bàyyi la nga tëj peut si y a pas une autre question qui t'intéresse aussi bu ñu mën a aborder avant ñoo tëj émission bi. bon non je crois que je pense que ça va waaw waaw ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a mm-hmm, baax. Mm-hmm. ñoo ngi am mbégte bu baax. ma mm-hmm. ci xam-xam bi ci dal bi. ak ci maandu bi parce que gis nañu y a certaines maandu bi daal. jiital wax nga ci. ci ci ci ci ci ni mu waree. Mm-hmm. ñu bàyyi la rek nga mm-hmm. tàggoo ak uh, suñu mm-hmm. mbokk internet yi. waaw bon di la remercier Cheikh Tidiane yow tamit vraiment l' émission c' est c' bien passé. vraiment dans une ambiance très joviale ah. di remercier bu baax di remercier également tous les. ñi les internautes les internautes ñi doon seetaan ah. di yaakaar ni aussi que ni rek si waxtaan bi jot nañ si jëlee dara pour le bien du du du Sénégal d'accord mbokk yi ñoo ngi leen di ci beneen euh, émission ak notre invité fii ci mm. senego point com jërë ngeen jëf